dal leen ak jàmm téeméer ak ñaar fukki doomu aadama ñoo faatu ay téeméeri téeméeri jële ci gaañu gaañu yu métti ajjumab démb bi métti na lool ca Paris nii la ko quotidien xamle yéenekaay bi daal di dellu ci série attentat yi nga xamante ni ñoom ñoo am ca France ni ki démb muy ay attentat yoo xamante ni ñu ngi am fukki weer dong gannaaw la xewoon ca sarli Hebdo ñi ko def juróom wala juróom benn tireur ñoom ñëpp kenn ci ñoom muuruwul yéenekaay bi sukkandiku ci ay témoin ne ñoom ñëpp a yore woon ay ngànnaay ay fusil d'assaut ak it ay kalachnikov grand place ne attaque yooyu le ñu ngi ko defee ci wetu stade de France yokk na ci ne gannaaw ñi faatu am na ñu bëri ñu nga xamante ni ñu ngi leen téye woon otage ci salle de spectacle Bataclan nekk ci xolu Paris yéenekaay bi di grand place wëlbatiku xamle ne attaques yi daanaka dañu ko defandoor bilan bi ñu wax mën nañu jàpp ne bilan provisoire la maanaam li mu ñi faatu jeexagul waaye nag yéenekaay bi nee na am na ay équipe secours yoo nga xamante ni déployé nañ leen ci terrain bi Si yéene kay ne kenn mosu ko gis neena ca Bataclan dong amna lu toll ci juroom ñetti fukki doomu adama yu ca ñak seen bakkan ba ji France ngay jaxaso populaire moom neku ci datu Dembubi, bi ne ajumab demb bi mok fukki fan ak ñetti ci weer wi lu kenn mosul gis la mo xew ca France téeméer ak ñaar fukki doomu adama ño ci ñak seen bakkan ay fukki fukki nit jele ci gañu gañu ci juroom ñaari attentat coordonné yo nga xamante def nañ ko ca France amna sax ab kamikaze bo xamante ay ndel la bopam ba fees del daal di kalaate lépp a ngi xewee ci bi match bi doxoon diggante France ak Allemagne di daw François Hollande daal di décréter état d'urgence tëj frontière France yi lii la yenekaay bii di Soleil xamle dellu siwaat ci ñi ñàkk seen bakkan lim ba toll nañ ci téeméer ak ñaar fukk ci boobu boobule di soleil ba tey François Hollande tiis dal ko ba tax xamul lu muy mën a qualifier li xew démb nee na lii horreur la épreuve bu métti la bu nga xamante ni dafay wone ne terroriste yaa ngi ñuy teg gët ba tey ci biir yéenekaay bi di la soleil Macky Sall it yëkkati ci ay kàddu ne njaaxle la amee tiis la amee gannaaw li dal France di réew bu nga xamante ni xaritu Sénégal la ci ab bataaxal bu mu yebal François Hollande ak askanuk France yépp Macky Sall ne ñaawlu attentat terroriste yooyu nga xamante ni ñoom ñoo tax ba France nekk ci dëj jamono ji Macky Sall jeexalee njaalam ak njaalu Sénégal gépp ci njabootu nga xamante ni ñoom ñoo looru ci yooyu le attentat ñaawlu na nag attentat yooyu bu baax ne lii mooy wone ne terroriste menace la ci humanité wu ci humanité bi l'observateur ci attaque yooyu ni am na ay motuwaay yu nga xamante François Hollande jël na force de l'ordre yi la wàcce ci terrain bi amit ay renfort yu nga xamante ni yóbbu nañ leen bi yokk ci ne am ay perquisition yoo xamante ni daañu def ca Île-de-France ba tey jeexul ndaxte am na lu plan blanc Bo xamante ni ci situation bu ne mel lañ koy faral di jëfee ngir rek gën a jàppale ñi nga xamante ni ñoo ci amee ay gaañ-gaañu ñu wax ci topp gi ñuy bi ci mim réew di Sénégal grand place Ribarné, amna am suspect buñu l'observateur joxe Ibrahim Ibrahima An lay wuyo la tax ñu japp ko dafa jege woon lool imam Ndaw niki demb lañ ko japp ci kabato ki nek ci wetu Kaolack mu melni nak japp gi ñuy ñi nga dañu am ay liens ak terroristes yi dafay jëm kanam bi di la tribune xamle division des investigations criminelles arrêté nañu Ben djihadiste présumé ci Rosso sama naataango bi xamle ne imam Ndaw bu ki ak Leyti ñang bu ci même bëss bi lañ leen jàpp la tribune bi sukkandiku ci ay sursam xam le ne Leyti Niang lieutenant Makhtar Joxaane la te ñu jàpp ko ca Niger moom Leyti Niang boobule sax indi nañu ko fii ci Ndakaaru la tribune ne boo moytuwul dana fekki ay ñu ñu tam yi nga xamante ni jàpp nañu leen libération ne cible prioritaire la Modanu, Charoso. ca Rosso sore lol attaque terroriste présumé yi nga xamante ñu ngi leen di japp réew mi quotidien daal di ci suba eh, benen affaire bu ñeel walu ger tolluna ci juroom ñetti fuk ak juroomi million ci sunuy koppar ci ab marché wu SDE yéenikaay bi laaj ne ndax cour de répression de l'enrichissement illicite dana Chambar qui di Amadou Makhtar Job. moom miy grand serigne de Dakar yéenekaay bi ne tooy na xet ci benn marché compteur te boo moytuwul sax ci diig la jëm lépp nag mu ngi xewee ci bu mu jiitee SONES réew mi quotidien dellu siwaat ci mbir moomu nga xamante ni dañu ko noppee woon ci jamonoy Abdou Diouf waaye tey jii mu mel ni cour de répression de l'enrichissement mbir mi daf ko soxal la yéenekaay bi xamle sama naataango bi sax dem ba xibaar ne xaalis boobule ñu ngi ko wëcc ci benn compte bu nekk ca Paris coowal assemblée nationale Sud Quotidien moo ñu koy xibaar ni ki tey nee na Moustapha nag dafa mel ni mbir maa ngi gën a doy ci moom yéenekaay bi dellu siwaat ci tas gi nga xamante ni ay sénégalais bëgg nañu ñu tas ko assemblée nationale muy question boo xamante ni ay citoyen lambda yu jóge fu nekk ñoom ñoo boole daxañ ko ci ab pétition pétition boobu nu ñu ko tuddee moo di sauvons notre assemblée Jean-Michel Diatta sama naataango bi ne ña sooke pétition boobu li ñu bëgg moo di ñu dàq Moustapha Niass ci bopp assemblée nationale ba noppi tas ko leneen ñeel xibaar ci l'observateur beneen mbir la bu ñeel ki nga xamante ni moo di karamboj dellusiwaat na ci mariage bi ñuy wax ak Lisa ak it wàllu escroquerie boo xamante ni kam ca tuumaal moo di góor gi si Dieng ak kii di Karina Tavares karamboj glissé ci terrain judiciaire ni la ko yéenekaay bi fësale international sénégalais boobule saisir na procureur de la république ci ab plainte plainte balam cay ñaawlu moo di diffamation ak it escroquerie nee na juróomi site internet ñoo ko diffamé escroquerie bi nag mu ne góor gi si Dieng moo ko def ndaxte daf ko jaay woto boo xamante ni kenn mësul teg bët oto bi Karina Tavares moom mbirum or moo leen boole ci wàllu terrain bi yéenekaay bi di l'observateur dellusiwaat ci match bi doxoon diggante Madagascar ak Sénégal ndam demul ndam dikkul équipe bu nekk ñaari bal nga dugal sa moroom yéenekaay bi ne sunu gaynde yi daal catastrophe moo leen doon yoot ni ki démb stade quotidien ne waaw waaw ndaxte li ñu doon yoot ni ki démb bu antu woon musiba am jour de sport moom jàpp ne yaram tàngoon na lool ni ki euh, démb maître Augustin Senghor di njiital fédération sénégalaise bu football ci biir yéenekaay bi di stade quotidien daal di digle nee na nañu tiire leçon yi tukkee ci match nul bi ba noppi nag ci match retour bi ñu def sunu kéem kattan ba jël ndam li